dañuy def ay marche yoo xamante ne kenn xamut lan la ñoo fi indi politiku ku wax ñu saaga la ñoo fi indi nangam moo tax lii yëpp xew moom lii yëpp moom jël na ko xëpp ko ci kaw Ousmane Sonko. xam nga laataa ñuy dem ci waa Walfadjri daana leen. voilà xam nga Cheikh Yérim. Mhm. man daanaka damay bëgg parce que miin nañ ma ci man dama yàgg a wax ne lépp lu mu wax damay bind fen ci wet gi ba gis lu ko dëggal ma doog a far. Mhm. waaye man wax na rek maanaam dama jàpp ne bind ne fen na di xaar nag mu wax lu confirmer wala dara nekkul ne nag lu mu wax duma ko jàpp wala dara kon bu waxee loolu damay ñëw ci yenn moom waxoon na ne Ousmane Sonko biñ ko tëjee mu ne dañ ko tëj du ma tiire ci ambulance dootuma wax ci moom loolu dèjà fen na maanaam bu la diggee it mm. war na mm. wax diggoon na Sénégalais yi ne le fait que kii a ngi fii dootuma waxati ci moom mm-hmm. wor na fenkat ak workat yonent bi def nee woon euh, ju koy naaw fekk ñett la mhm. soo ko wuloo mu wor la su waxee fen waxee fen la su la joxee rendez-vous mhm. midi mhm. daal koy fausse dem ba quatorze heures mu wor waa kay mu wor la loolu noonu def na ñaar yëpp ci biir benn bi muy moom ci histoire Sénégal politique gu Sénégal damay dégg muy wax ne ak ñu bari naan li mosu fee am diggante sengoor ak Lamine Gueye mm-hmm. yeggoon na ci tar ba benn tarixa bopp ñiy faral Senghor ndaxam lu ñuy nase seeni kurus ña faral Lamine am lu ñuy nase seeni kurus mm-hmm. Pastef yeggagul foofu 63 mm-hmm. euh, année bu yooyu dañu déclaré ne 43 personnes moo faatu li faatu woon ëpp na 200 personnes Demba Diop maire Mbour fi ma juddoo en 1979 Thiès gii réunion politique ñoomu neen bureau politique fa lañ ko faati téel lu bal mu dee. Demba Diop bi ñu tuddee stade. stade bi waaw kay ak euh, Mbour. Mhm. te yeggaguñ ci waa waa waxuma la waa Pastef waaye waa APR gi nga xam ne fu ñu daje sax saisi ay naaw. Mhm. mu ñu daje seen biir ba rey nit. Mhm. te pourtant social si yi ñuy wax ne dañoo civilisé. ñoom rey nañu nit seen biir ñoom ñu neen kenn raxu leen. du PDS du keneen. li ñuy wax ay tonton Macoute commission de bastonance parti socialiste bi ñu naan daal civilisé yeggoon na ci. Mhm. ku àndut ak ñoom xalaat ñu dajale rukk ba nga nooy. les waaw non danaa ci ñëw après mais dama lay yax ne foofu la tàmbalee. Mhm. bi waa PDS demee bu ma xam ne nag buñ jógut maanaam dëkkub fayu dëkkub dóore fayoo koy tas. Mhm. ñu gat sa gat sa. kay fuñ dóoree mu metti ñu mujj régler. loolu moo indi woon calon bleu. loolu Sénégal gii la xewe yaakaar naa ne élément événement 93 yeeg wadd moom daa gàtt sa gàtt sa ak Abdou Diouf du Abdou xool benn place. Mhm. du bëtam yu rëy yu rafet wala nelam bu leer a tax ñu indi encre indi libil wala indi isoloir wala nangam nangam gàtt sa gàtt sa. ba nga mhm. woote wallu. Mhm. gars yi bu sësee xam nañ de. dañuy wàcc. ak ci démocrate yi ñu am yëpp Sénégal looloo ñu ko may. kon bu naan lii mi ngi fi mas a am ma ñëw nag ci Pastef gi mu sosal ne bi mu ñëwee. Mm-hmm. moom ma wanewaat ne day fen te moom sax dafa bokk ci ñiy màndargaal ne li mu wax du dëgg. Mm-hmm. Pastef bi ñu ñëwee lan lañu ñu di indi feeñal sulli li ñu nëbboon ci lu bon pour di dil ci kanamu askan wi lañ tàmbalee di wax def li ñuy wax production intellectuelle bind livre. dene ñëpp sans filtre. Mm-hmm. doomam mu bokk ci au mu ñëw mm-hmm. laaj xam-xam. muy laaj naan sa sikkim daa gudd ak. Mm-hmm. ñaari jabar nga am ak. wala nangam nangam ak yu demee noonu dañuy muuru. te pourtant moom nee na ñaseen la. Baye Niass daa sikkim. man mii di taalibe Seexul Xadim. suñu Tuubaa sikkimam fii la kii ba bu kaalaa da nga koy gis fii. yii ñuy wax ne ci màndarga yu bëri solu euh, murit dëgg dëgg dëgg caaya ji ngay sol day cëkk ñeneen ñu leen di wax. parce que dafa am njàngale yu bëri yu ci am yoo mhm. xam ne ci mhm. tubay ju gudd mhm. lu tax amuñ ko loolu noonu benn mu am ci kon mu wane ne Ousmane Sonko bi mu ñëwee ci lii la doon woo nit ñi léegi nag ñu dem ba 2019 ñu jàll ay élection ma jambal ba tey xam nga ñoom c'est des montres cachées maanaam montres yu toj lañ ils n'ont raison que deux fois par jour muy jàmbal ak Gilles ju oh, non sulu jëp sax xaw yenn sa moom day nay wax dëgg yenn saa yi mais Cheikh Yérim ñu ñëw 2019 sonk Sonko jëlul deuxième troisième la jël waaye ma jambal nee na ma giseek ak yenn kilifa tudd ñam ca tudd ne leen du Idrissa Seck ma tiital waaye Sonko mi jël troisième ni ma gisee réew mi suñ yeggee maanaam élection yi mooy gañ te bu gañee yéen lislaam bi ngeen yor maanaam ñooñu ban l'islam lañ yor. Mhm. ndax l'islaamu tappale lañ yor ba mu li l'islam bi ngeen yor wala lislaam day ñaar. Mhm. fen fen yu rëy yoo xam ne yaakaar naa di jaxase. Euh, Ibnu Taymiya ak Hassan al-Banna. Mm. ki jiite Frel Frel Misa imam moom a gën a comprendre. Mm. nga am li muy wax xamu ci dara. Mm. yi ñu leen jox rek élément wala voilà élément de la no kee laa wax non oh, waa ji wax laa wax xamu ci dara non non imaam imaam imaam xam nga man maak moom maak moom dañuy mën a def man benn affaire war koo liir <laughs> pour pour ma jàpp ko man maa ngi am benn affaire bu ma a pour ma jàpp tuuba rek non Vito Vito Vito Vito xam-xam xam nga lan moo koom kii <laughs> dafa laabir ci xam-xam uh-huh. bépp jàng euh, borom xam-xam bu laabir ci xam-xam xam nga nag fii li ci ëpp ci warum xam-xam wallaay maam dañ koy téye di ko nappee askan wi. Mhm. kii man ci wàllu juriste comme ni avocat boobu juriste boobu Mbaye ak Pape Moussa di def. di mhm. wàccee terme yi di wàccee niveau bi niveau bi pour nit ñi comprendre ba léegi professeur laa mi ñu daaru. Mhm. nekk professeur de droit <laughs> mën na laa jàngal droit. ak yooyu loolu am. non non bu reetaan bu reetaan dégg nga dégg nga mm-hmm. dañuy baax parce que seex du du débat ñooñu. Mm-hmm. non non mais dañuy dem loolooy débat bi nag question waaw non danañ wax mais nag bu ñu duggee foo xam ne. Mm-hmm. dafa am sens li ñuy wax moo gën jëmmi seex yi. bàyyil ma yegg ci ci imam <laughs> maanaam ci ñooñu ci droit dañoo wàccee làkke ba professeur laa mi ñu daara man laa jàngal droit. imam noonu la kii ci xam-xam. ba man lu baree bare bari dama ci yokk sama àll. mais ci moom léegi moom yow bu lay jàngal. moom mi ngi. macha allah mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi nafar. dëgg la mi ngi nafaraal day gën a xam lu mu xamul woon. ba pare boole kook ragal yàlla goo xam ne sama borom moo ne. Hmm. ragal leen ma ragal leen yàlla maanaam ragal leen ma ma xamal leen. kon boo ñemee yàlla loo am xam-xam-xam da ngay mujj. ayca saa wolof doxalal. loolu. Hmm. man mi xam mboo rek yëpp ci dal dañuy man maa maa moom ñaari PS lañ man dama di ceddo. waaw <laughs> doxalal saa wolof ci li nga war a doxal <laughs> saa. ay sa soxla dañuy mën a aw maag moom yow di yow bu doy nga nga indi fii non lii awee buñ ko seetaane dañuy yaakaar da ngaa coup d'état non non xam ñoom ñaar rek ñooy wax léegi xam nga li ciy grave bu may ñëwaat noonu di semaine bi wala jeudi yi dama leen di indi li ngeen di maami invité teg leen yéen yéen teg xam nga yaa ngi fi wax naan tuub national ma ne ko ah, déedéet <laughs> <laughs> xeexoon Cheikh Abdou ñi. non non bii di ñëw moom bii damaa bëgg vraiment ñu waxtaanee. non non ñëw Pape Moussa Sow la ñuy invité incha allah. yii lu garaaw ngay defar boobu laa boobu la ñuy def loolu moom dégg naa ko sa loxo invité bi teg naa ko sa loxo. kooku mooy sama sëriñ. waaw teg naa ko sa loxo ay sa doxalee. bu ko defee yow ñaar ngeen toogee. léegi waa comme daa ñu comme waa ji dafay fen bay réer ci fenam. Mhm. moom day fen bay fàtte lu mu waxoon. Mhm. xam nga pathologique xaw ma pathologie. Mhm. sëñ jaaji taal. Mhm. yàlla na ko yàlla yërëm. moom jëlaa ko de waa masse pathotique. mais mhm. pathologie la. maanaam da ngay fen bay gëm say fen. maanaam day nettali ba moom du xam sax xam nga li ñuy wax xarit bu. dof noonu mhm. bi yeewu da koo gën moom daf ñu wan sax kan mooy Macky Sall man keroog bi mu waxee kan mooy mais nag teewul nag loolu nag li may jéppi-jéppi Macky Sall maam li may ñàkk-ñàkk ànd ak Macky mhm. ba léegi gëw ma ko de le fait que Cheikh ma ko wax mhm. mais nag neex na loolu ci dégg ci wan ma Macky Sall mais nee na dafa nekk ak Macky Sall ci oto bi ñu taxaw Macky Sall nekkoon gis nga lii de ma gars yi di ñaanee. lii de la ñuy kii. cooli cooli maanaam tooy tooy décret bi la mu ne ko bu ma àndoon ak yow de may jàll yow doo jàll. dëgg la président duy caaxaan. ak noonu bu ko waxee. xoolal ma kooku ma ne kii kon dans sa tête moom day nguuru ko hmm. moom li ko jox au lieu mu def ko sacerdoce xam ne jox nañ ko yan nañ ko yan bu rëy. Hmm. mandat mooy ab yan. yan bu rëy boo xam ne ni yow da ngaa war a dugg ci l'histoire hmm. ñi nga fi fekk ñu ñetti président da leen war a gën. imaam moom lu mu wax mu ne ma sama góor gi. jubluwut wàdd waaye. Mhm. bu ma ko waxee dana dama koy nangul. gis nga Abdou Diouf moo gën Senghor foofu ci démocratie. Mhm. mais Senghor loolu warta doon gàcce ci moom. parce que am élève ba ki topp ci yow. ñëw tane la ci démocratie ñëw ne jàkk jànku loolu mën nañ ne sax yow am nga ci loo ci participer. mais nu ñu gisee wàdd ak Abdou juuf mhm. ñun ñëpp xam nañ ne wàdd moo ëpp Abdou Diouf démocratie. mais Macky ñëw bëgg a yées ñoom ñëpp. te gis nga bu ñu defaloon lu ko jar. sax ñu ne waaw mais pour ma yam ci Cheikh Yérim hmm. wan la ne maanaam li muy wax ba naan waa Pastef la hmm. maam l'inverse moo am day fen waa Pastef suñu leen déggaloon dara du am parti yi dañ leen di organiser bi ñu yegsee xam nga lu njëkk a def Idrissa Diallo xamoon nga ko tam nekkoon parti socialiste àndoon ak Khalifa nekk tem gaañu yàlla na ko yàlla yërëm nekkoon maire Dalifort hmm. moom la Sonko jël dénk ko lii ñuy wax tey lii sare maanaam mhm. mu yoroon loolu ñuy wax école parti mhm. kon problème bi mooy ñoom dem nañ ba sax bu ñu amee expertise te loolu gis nga démarche boobu day wane parce que mën nga ne sax boo nga xasee ko ne ko yow waa parti socialiste ñoo jàngal sa waa parti mu kii mu réyee ko mhm. mais réyewu ko kon li mu wax nit ñi ne bu ma toogoon sénégalais foo mën a nekk bu dee post bi yaa fa gën yow lañ koy jox loolu day daal di nekk dëgg kon sàgganewul xam-xam li mu bëggoon mooy ci wàllu idée mu teg ko ba jëloon sa Diallo mu yor école partem far kooku yàlla weddi mm-hmm. mu jël doyen Moustapha sare di nit ku baax te jox ko daaray Seex Anta mm-hmm. man sax yenn saa yi bu ma gisee euh, doyen Sarré ci plateau damay am lu ma naqari te dama damaa gisee moom ba dama ko wax ma ne ko bu ma doon yow da ngay gën a concentré wu donte ne nag xam nga loolu fi ñu leen yóbbu la parce que nag gis nga Pastef li mu woote woon yëpp mooy xam-xam mm-hmm. mais ñu jël di la ci defal ay conspiration koo xam ne yow ñaari dossiers yi tax ñuy wax yépp alalul Sénégal moo doon dem. Mhm. ku aj du bëgg ku téen ku denc ci ronlal du gis ku nëbb ñu fekk suuf Sénégal suuf soo xam ne dem si yàlla jiili mbay moo am lante woon ak benn famille. famille ba ñëpp jaayuñ ko woon bi ñu demee ba mu yegg ñoo ñu porté plainte mbir mi taggatémba wàdd ñëw na fi laaru dossier bi ba ni yi ñëwee. bi Macky ñëwee ñu xool xam ne suuf si famille ba sax ñoo gañe joxaguñ leen dëgg suuf si nekk ci coow benn waay jóge fële daal di ñëw ne famille bi jaay leen ma coow li waxu leen jaay leen ma suuf si de. ñaata lu 2 milliards yu tege maam ma 3 milliards. mais ñu toog ay fan la mu jëndee 3 milliards lu ko yées ñëw jaay ñu ko ñun waa senegal vingt 94 milliards. kon nga mën a gis foofu li wolof di wax naan xuuxaane jasit su ko golo xamee. am na ku dox ci diggante bi ndax golo moom du nuur cim ndox ni jasit te jasit du dox ci bitti lu yàgg bay yéeg ci garab kon bu golo xamee xooxaanam xam na ku fa jaar eh, bar bi nuur di nuqi ak ay yéeg kooku la léegi nag Mamour Diallo mooy bar bi mm-hmm. moom moo nekk ci euh, domaine xam suuf si waa ji amag moomu xarit ñu jékki-jékki gis loolu bi famille lébu bi ñëwee wax ko Ousmane na ca am 10 pour cent na ca am 20 pour cent sunu yoon newu ci. kabineem mm-hmm. la ubbi bi mu koy seet ba gis ne yéen sax waxuma la li leen lor mais ñun waa Sénégal lañ gën a lor. ndax yéen amaana yéen ku leen joxoon 3 milliards yooyu ñu la bu ñu leen joxee 3 milliards mën ngeen ko séddoo wala mais ñun waa Sénégal yi jël ba pare état xam suuf xam fi mu mën a nekk ñu mën a jëndee 3 milliards ñëw jaay ma 94 milliards di ma avance daanaka 43 milliards xaw ma quelque chose mi yóbbu ko moo nekk en kon conspiration bi ñu tëgg contre Sonko su dee crime lan mooy le mobile di crime maanaam kan mooy suspect bi. Mhm. ñu ne Mamour Diallo quel est mobile. ñu ne la parce que day yàq day ñàkk postam te nangam ak nàngam kon ca la gisee ndaw si euh, ba lii am am. procès Mame Mbaye boobu noonu benn la askan wee tax mu dem procès Mame Mbaye ñaa ñu jël suñu xaalis programme boo xam ne trois cent et quelques mille jeunes la waroon a liggéeyloo amoon na trois cent et quelques mille yooyu cent cinquante mille wala cent mille yi am na ci ñoo xam ne dee nañ ci micro agro. wala dee ci yaa ngi ci Cheikh Yérim ba léegi. non ba léegi pour ma wan la ne maanaam li nga xam ne moom lay wax Ousmane Sonko ba Ousmane Sonko doon ciy indi ba tax li ko ciy fekk fekk ko ci te loolu yëpp mooy cause bi. li ma lay wax nii léegi projet boobu kii nga xam ne moo lay wax muy direction des marchés publics te sëñ bi géey na ci. Mhm. waa Prodac ñëw ne ko dañoo bëgg loo xam ne cinq milliards pour liggéey nangam mu ne kayit di ngeen ma wan daw jotuma ay suffisamment d'arguments yu ma leen war a joxe xaalis bi mm-hmm. ñoom ñu jaaree ca collam kaw ma dem ARMP mm-hmm. mu jox leen vingt neuf milliards def ko ca kuñ mm-hmm. bañal cinq milliards ñu dem jox la vingt neuf milliards te lañ doon séentu ci trois cent mille emplois amoo trois mille emplois am foo xam ne Etato ñu doon séentu quatre vingt deux bassins jotuñu lu mat dix mais kooku Ousmane Dikpol lañ bët ñu tegal ko sëgg ndee sëgg dee Mame Mbaye Niang ne euh, rapport am na ci vidéo ñëpp gis ko Amadou Ba ne rapport am na ñoom ñu taxaw tey ne rapport amut na Sonko génnee rapport bi boo ko génnee ñu tudd toppee man laa toppee di recel des documents boo ko génnewul waa ji mën laa euh, teg ñu daal di la ciy rocc sa candidature walaa dee lii affaire u naq sa xandang yu ñàkk fayda yi ñu poussé Ousmane Sonko ay nangami nit luy jege téeméeri nit faatu kon loolu bu amee kenn ku muy wax dafa waroon a wax ne. Mhm. président Macky Sall bi nga faloo ci réew mi ba dëgg ni la mhm. lii am. kan moo am lan teg Karim Wade toppee ko pla euh, trace traque des xam nga des biens. supposé mal acquis mhm. kan moo ko toppee Karim Wade ci loo xam ne ci ay kàcc ay nit taxaw ne bu ñu leen defee joxe ñu dem wane fa mu nekke neexuma sax la fait que may wax lu xaw a doon ci faveur Karim Wade ndax daa ñàkk jom mais naa ko wax rek ndax fekkee ndax fekke non non xaaral tuuti non non non avant Sonko avant non dama wax rek pour mu xam kan la mm-hmm. kan moo waral loolu loolu mu mm-hmm. defal Ousmane Sonko ak euh, euh, euh, Karim Wade ak li fi xew yëpp ñu jël suñuy xaalis mobiliser ko tey bi ba Boursé ngi nii di ñu toppee cent 168 milliards xam nga dañ ne Sénégal dafa toppee Karim Wade 138 milliards mais noonu la ko toppee woon Bibo Bourgi Bibo Bourgi yóbbu ñu tribunal de Paris ñu amende Sénégal 168 milliards tey bu ñu demee ba mu sës fu ñu fekkatee wala tey ñu waxtaan alami yaawal waxtaanu suuf parce que lu nekk sañ nañ ko tey bu ñu ko fekkoon mooy dañuy jël alalu Sénégal bu dut avion bi. Mm-hmm. fu Sénégal am ambassade wala fu mu am bien. mën nañ mm-hmm. koo jaay jox Bibo Bourgi kan moo ñu indil loolu ku doon Macky Sall moom la wala du moom. xalifa mhm. sàll mii ñu toppee IGE toppee ko woon euh, enquête ci kawam. Mhm. ba ne ko yow lii nga def joyanti ko mooy nga war a def facture mu war a jëm ci ordinance wala lenn lu mën a def mais nga justifier ko ceeb. Mhm. donte ne noonu lay demee joyanti ko joyanti googu ñu ñu def ko ak toppi maanaam ñu toppee ko def ko poursuite. Mhm. sàcc na ko wala sàcc ko mais en tout cas li IGE wax mooy nañ ko joyante mhm. ñu topp ko ci moom mu génne xaalis donte loolu mu génne fu mu ko fu mu fu mu ko amee mën nañ koo laaj. Mhm. ne lii mooy sama garantie ñu ne ko soxlawuñu. tëj ko tëj ñeneen ak ñeneen ci biir. kan moo def loolu Ousmane Sonko la wala kii dama ne Sénégal yéreem bàyyi sa tappale yi falaguñu Ousmane Sonko. Macky Sall la ñu fal mu fekk Sénégal taux de am nekkoon dix point deux mu indi ko vingt point un. loo fekk dix point deux yóbbu ko vingt point un. Cheikh yow lu gën a bon nga def Macky sàll moom moo fekk moo fekk daanaka amuñ ci ay bor lu mat sept mille milliards non xaaral tuuti xaaral tuuti xaaral ma daaneel foofu ci ay bor non xaaral tuuti non dimbali ma non fii dafa baax non fii ma toll dafa baax bàyyi ma noos voilà waaw d' accord débat la mais baal ma noos ci fii imam comprendre nañ ma maa moom lii la ñuy defante waaw léegi. Mm. nga ñëw fekkoo ñu ci bor dette lu mat 7000 milliards nga yóbbu ñu 16000 milliards. Mm-hmm. nga ñëw fekk Sénégal boo xam ne nii lim la nattalagul. Mm-hmm. mat na 46000 milliards. Mm-hmm. léegi yow dama lay jox benn exemple bu fekkee ne. chantier bu mel ni arène bële. huit milliards lañ ci def sa ministre taxaw ne trente deux milliards lañ ci def. kàcc kàcc yu rëy. ambassade Sine ñëw ne huit milliards laa ci def dama leen koo may. maanaam arène ba léegi kon mënoon nañ cee am juróom Mhm. maanaam am nañ ci ñeent. léegi bu fekkee ne yow bépp projet boo teg rek mën nañoo am ñeentam est-ce que am nga bilan bu baax bilan bi gën a bon ci àdduna gën a catastrophique Sall moo ko def. parce que nag kenn ku nekk da ngaa xool war a xool yow lan nga ko jox dépense ndaw si nga ñëw nga jox ko 3000 nga jox ko 1300 francs ne ko toggal ma ceebu jën bu neex. Mhm. su la demoor deele waroo ko ne carotte ji nangam ak wala amul nangam parce que li nga ko jox baaxut. Mhm. ndaw si ñëw ceebu yàpp. jox ko huit mille deux cent francs. ceebu yàpp bu saf. ak ak nangam ma rek te mu kiiwul war nga ko mën a may. mais ndaw si nga ñëw jox ko douze mille mhm. francs. Mhm. ne ko ne ko toggal ma pay laa. Mhm. mu toggal la pay non xaar tuuti non non li may wax dafa baax non du réer ma dof bu ma nii yow yow kon <laughs> yi romb nañ la bàyyi ma yeggale rek <laughs> nga daal ñëw jox ko douze mille francs ne ko pay laa mu toggal la pay laa bu xaw a kii ngay mer waroon mer <laughs> mais ki nga ñëw jox ko quarante six mille francs man ñoo ci Cheikh jógee fa dem ci pay laa non non damay wan Cheikh Cheikh Yérim laa non da nga ma déglu de da nga ma déglu de damay wax seex Yérim damay wax Cheikh Yérim wax Cheikh Yérim ki indi tappale yi ci Sénégal te loolu faaw ñu wax ko mhm. quarante six mille nga jox ko ndaw si mhm. ne ko toggal ma laax maanaam ndaw si da ngaa teg sa xaalis 46000 <laughs> déglu ma rek 46000 nga teg ne ko demal toggal ma laax hmm. waxu ko toggal ma ci quarante kii nangam ne hmm. mu dem jël maanaam 50000 ya nga fa def ne la 46000 laa dépassé ci laax bi hmm. mais nooy def te yow fekk bi yow da ngaa toggaloon kee ceebu jën mu jël ci 1300 di mer laax nga toggaloo kii te fekk yow soxlawut lu may def ci 15 euh, maanaam bu dee mbooloo 15000 mu ne la 46000 laa ci def doo wutu yet 46 mille milliards lañ nattal Macky Sall ci 12 ans Abdoulaye Wade 12 mille milliards lañ ko nattal ci 12 ans Abdou Diouf 8 mille 200 milliards lañ ko nattal ci 20 ans Senghor 1300 milliards lañ ko nattal ci vingt ans kon Senghor nga gën a moo gën baax Macky Sall bilan. wante ma la ak Abdoulaye ak Abdou foofu laa bëggoon a jëm ak yow. <laughs> non man maa bëriwutoon xam-xam ndeke. kay ndeke man maa bëriwul xam-xam. mais kii li muy wax xam-xam la fi <laughs> mais imaam Cheikh Yirim ak Cheikh Niass ñu daanalee ci moom Cheikh Niass ak Walfajiri léegi nii sax am na benn vidéo boo xamante ne euh, Macky Sall moo ko defoon ci euh, kanamu. ci président Macky. kii Baar Daarus nekkoon ci nguur. bi nga ci nekkee primature assemblée bi nga ci génnee coow li toujours mi ngi tourné woon ci lu mel nii mi ngi ñëw. te yow nanguwoo ko nooñu ko jàngatalee puisque li nga xam ne moom la ñu Ismaïla Madior Fall wax mooy yàgg nañoo laal constitution bi ba mujj na dépassé constitution yi ñu laal yépp ci àddina ñaareel bi itam bu mujj bi ñëpp nee nañ am na luñ ci jublu ñaar yooyu loo ñu ci jàngalee comme koo xam ne am nga ci expérience dund nga ko. jërëjëf euh, Sidi Lamine ñu lay gërëm aussi. ci liggéey bi nga xam ne Walf Fadjri TV ak wal Fadjri rajo ñu ngi koy def ci wàllu dëgëral démocratie si biir réew mi nguur nag boo ko waxee ñu nekk ci réew mi ay sujet lañu maanaam dañu leen moom amuñu kàddu buur moo am kàddu ku ko daguwul doo am sa wàll loolu la Sénégal mënul nangu tey moo tax xeex li fi am dafa nekk obligation tey pour képp kuy doomu réew mi pour que Sénégal nekk démocratie ku ñu fal nga xam ne dañ laa jiital waaye moom moo mbir mi mbir mi peuple bi moo ko moom. moo tax nag ma yaakaar ne peuple Sénégal d'ailleurs depuis barke démb barkati démb wane nañ seen bopp te ëllëg mobilisation bi nar a am danañ ko wan ne réew mi moomu ko te dana na dellu ginnaaw mooy li gën ci réew mi gën ci moom. su ko defulee évidemment euh, réew mi moom mooy mujj toujours am dëgg si njiit yaakaar naa histoire Moussa histoire Firawna ak musa war na doy képp ku yor nguur yaakaar ne yaay buum yaay buum yi ba mu ne kenn du am doom ju góor sa réew ma yàlla indi na ko doom ju góor joo xam ne àndul ak ndey àndul ak baay ba ci biir palem bi kooka màgg bi moo ko sóob si géej gi kon yaakaar naa ne peuple bi moom à la kulli il aura le dernier Eh, tàmbali te actuellement vidéo bi ñoo ngi gis Macky Sall mu ngi wax mais Walf ñu ngi insérer ay images yoo xamante ne xale yaa ngi taal dëkk baa ngi booy nit ñaa ngi daw nit ñaa ngi def lépp li tax ñu tëj leen fu mu toll nii. waaw.